ak ki nga xamante ne bi mooy caaka fay waaw waaw mbokk yi final poids lourd caaka fay alias bis alias biram kunkung borom ñetti tur yaa ngi noonu njool géant bu barñi lay bëreel final poids lourd la dimanche le 3 juillet 2022 et stadium Iba Mar Diop tournoi de lutte sans frappe organisé par les arènes Abou Ndour ak ñamu àndal Babacar Diom yàgg maar waaw waaw ñoom ñaar daw nañu jàppante ca kaw oh biram kunkung jël na ko oh, dara amagut de day jeex wala jeexagul biram kunkung da koy tuur waaw waaw biram kunkung da koy tuur war na ko ndombo waaw waaw est-ce que di nga génn ci lii est-ce que nga ci génn est-ce que di nga ci génn oh géant dafa dëgër nag. oh waaw waaw Biram Kunkung daan na géant Biram Kunkung jël na final ba daan na waaw waaw làmb ja jeex na amateur yaa ngay ñibbi njool géant jommi na toog na waaw waaw loolooy làmb de woo da ngaa ba daanu waaw waaw oh njool géant tëdd na jógal mbër làmb noonu la ma jël Bamba ñu ngi ak Abu Abu Ndour Abu yow yaa jiite les arènes tey ngeen tëggoon li nga xamante ne bii mooy tournoi de lutte sans frappe. waaw fii ci stade Iba Mar Diop. waaw euh, ban jàngat nga ñu ci mën a defal gannaaw bu tournoi bi jeexee. ñu ngi sant lu baax sa sëñ Babacar xam nga lamb boo ko boo ko tëggee nit ñi ñëw ñëw ñëw en masse ñëw ci jàmm ñibbi ci ci ci ci ci jàmm. kenn déggu fi yëngu-yëngu kenn gisu fi lenn loo xam ne lu naqar avantage la ñoo ngi ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment ñu fi tey waaw mën nañoo wax ne ah, am am satisfaction totale. waaw vraiment am nañ satisfaction totale parce que li ci doon seenu yëpp vraiment am nañ xam nga xam nga xam boo nekkee un groupe de presse bu bu soog a juru yàlla dogal nga mën a un contenu boo xam ne bu mel nii donc am am lamb ñu yëgu ci lamb nga mën ko tëgg nit ñi ñëw vraiment am na ci satisfaction à 100 pour Lo. waaw Modou Lo euh, ko tuddee moo tax comme mënuñoo def ci képp kenn ne ko yow yow lañ allah incha sax bëggoon nañu tëgg deux journées wala trois mais comme saison bi léegi presque jeex na dañuy jox rendez-vous ñëpp incha allah tëgg ay journée bëgg nañ tëgg li lutte tëgg li lutte ay frappe incha allah di di gërëm ñëpp seen fay ndax xam nga ne une semaine moo des seen Babacar ci ci li nga xam ne moom mooy julle julle tabaski soo mënee wootee stade bi feesee nii gërëm naa ñëpp sant ñëpp ndax amul seen fay maa ngi gërëm ñëpp ñoom ñëpp a si jàpp presse bi ñëpp nag de A à Z beddiwu ma kenn ñëpp a jàpp ci promotion bi yal na liggéey bi gën merci beaucoup kontaan naa jërëjëf borom baax nga jërëjëf jërëjëf kenn du yow merci Dora Waly Mbergane jërëjëf jërëjëf kontaan naa si Babacar kontaan naa kontaan naa jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci